Ndeye Mariam Ndiaye asalaamaaleykum mbokk déglukat yi daal leen nag jàmm fële nga xam ne nag moom mooy ci assemblée nationale lu weesu nag ñi nga xam ne de ñoom ñoo nekk ci langu politique bi ak tamit ñeen ñu bokk ci weer société civile am na ab kuréel bu bees tàq boo xam ne nag daal dinañu koy taxawal ñu duppee ko observatoire citoyen pour la défense des institutions ñoom fu mu nekk nii nag la leen tax a jóg moom mooy fexe ba ñu tas tasaar assemblée nationale bii di Sud Quotidien ne kon dafa mel ni nag ne lii nga xam ne de moom moo xew fu mu nekk nii kii di Moustapha Niass de sóoraale wu ko woon ndaxte moom fu mu nekk nii daal nit ñi la ñu bëgg moom mooy ñu daal di koy jëlee ca kaw assemblée nationale ba tas tasaar assemblée boobu daal di fi walaat beneen autolekaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñee xamal ne observatoire boobu nag mën nañu wax ne bëri na ay parti yoo xam ne ñoom ñoo ci nekk ak tamit ñu bokk ci biir société civile ñoom ñu leen tax a moom mooy ñu fexe nag ba aar suñu assemblée nationale loolu nag moom moo tax ba la ñu gis moom mooy daal ñu daal di koy tas tasaar ba pare nag taxawal fi yeneen élection nee nañu sax ay élection anticipée ci janvier 2016 la ñu bëgg ñu daal di fiy amal ci nu mu gën a gaawee daal di ñuy nag lancé ab pétition di ñaan nag sénégalais yëpp daal di koy xaatim ngir seen bëgg-bëgg ñu war kaa mën a euh, taxawal waa division des investigations criminelles daal di nañuy teg loxo ku tudd Leyti Niang ñoo ngi ko jàppee fa li nga xam ne nag moom mooy ca Rosso nee nañu sax da a daw ngir dugg biir Mauritanie Leyti Niang moomu autolikaay bi di la Mactar Diokhane kooku nga xam ne nag fi mu nekk nii teg nañu ko loxo fa li nga xam ne de moom mooy ca Niger ñuy wax ne moom daal dafa la tribune nañu kon ñii di li nga xam ne nag moom mooy ca Rosso grand place diñ ci yokk di xamal ne nag lu weesu kooku di lay ci aan am na tamit beneen imam boo xam ne teg nañu ko loxo fële nga xam ne nag moom mooy ca Kabatoki cuglikaay bii di grand place mi ngi ñee xamal ne kooku mi ngi tudd Ibrahima Anne ñu desandi ak cuglikaay bii di grand place ndax ñu ngi ñee xamal ne démb ci guddi moom ma metti woon na tàngoon na jër euh, fële nga xam ne nag moom mooy ca Paris ndaxte ay attentat la ñu fa nemmeeku mu am ay nit yu bëri yu ñàkk seen bakken le quotidien sax mi ngi ñee xamal ne téeméer ak ñaar fukki nit daal dinañu ñàkk seen bakken ci attentat yooyu mu nekkoon nag ay attentat yu métti yoo xam ne sax tax na ba njiitu réewum France di François tuddee état d'urgence ba daal di tëj seeni bi jële populaire ngi ñuy xamal ne nag benn kamikaze moo njëkk a claté boppam euh, ci wetu Stade de bi nga xam ne nag foofu daal amoon na match amical ci diggante France ak Allemagne ñu ne déet ni waay mu am ab prise d'otage maanaam daal ay nit yu dugg nag ci boîte bi di Bataclan daal di nag yore seen gànnaay ne kenn lu génn wala boog ñu daal di leen rey nee nañu nag ci noonu sax la ñu faatee ba kenn ci lu tolloo juróom-ñetti fukki nit yëglekaay bii di le populaire nekkoon démb ci àjjuma di de tàngoon na jër foofu nga xam ne de moom mooy ca Paris njiitu réewum Sénégal di Macky Sall di naqarlu ak ñaawlu nag xew nga xam ne moom moo am ca Paris suñu naataangoo yëglekaay bii di laas di ñu xamaan euh, la nga xam ne moom moo xew foofu nga xam ne de euh, moom mooy ca euh, Paris tey jii moom mooy bés bi nga xam ne nag dañ ko jagleel di ñaax askan wi ci feebar bi di feebaru jabet yëglekaay bii di direct info mi ngi ñee xamal ne ci biir àddina bi yëpp am na ci lu tolloog trois cent soixante six millions ay nit yoo xam ne nag dañoo am feebaru diabète atum ren euh, nag ci wàll gi ni dañoo jàpp ab thème boo xam ne moom mooy une alimentation saine et maanaam daal ñi nga xam ne nag tey jii de ñoom ñoo am feebar gi ni mel dañoo war di lekk lekk gu sell te li ni mel lu war la saa su ne ñu dal di koy jeexalee ak wàllu tàggat yaram suñu gaynde yi démb ñu ngi doon jogante ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoom ñooy waa Madagascar mu nekkoon nag ci wàllu éliminatoire coupe du monde 2018 ndam demul ndam dikkul suñu naataango yi yooculikay euh, bii di zoom info la ñu te gis moom mooy ne suñu gaynde yi dañoo laaj yooculikay de sport ne démb kay tàngoon na jër ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy suñu nañu daal li am ba des moom mooy ne démb ndam demul ndam dikkul mën na am suñu gaynde yi nag fii ci biir Ndakaaru euh, dinañu fexe nag ba am ndam ci kaw waa Madagascar war a xalaat nag am ay poñ yu baax ci wàllu éliminatoire coupe du monde 2018 wàllu lamb la ñu koy jeexalee ak tuulikaay bii di sunu lamb suñu naataango yi tey jii ñu ngay jokkoo ak Issa Diop moom mi nga xam ne nag moom moo jiite école euh, ki nga xam ne moom mooy Elton ñëw tamit ci feebaru ki nga xam ne nag moom mooy Balla Gaye numéro 2 ak tamit combat yi nga xam ne nag ñu ngi xaar ñu daal di ko koy tëggal moom moomu di Issa Diop daal di xam ne ni bés bu Balla Gaye numéro 2 pare maanaam daal bu nekkee nag ci forme bu boobaa moom bépp mbër du ko mën a rëcc rac dolli sax ñoom fu mu nekk ñi la ñu daal ne ki nga ne moom mooy Balla Gaye numéro 2 bés bu jekkee nag war naa mën a jàkkaarloowaat ak ki nga xam ne de moom mooy Yahya Diop Yékini li moo nekkoon mbokk di lu gat yi li ngeen a fas ci biir aujolikaay yii ñu leen di ñaanal te lu bés ak jàmm